suis un acteur politique je suis un homme politique un philosophe constant wax nga ko je dis donc am na ci constant bien dans ma logique hmm. sama logique mooy lan moo mën a dooleel démocratie Sénégal tey ji ñu retrouver une démocratie pluraliste ñu retrouver une vie démocratique normal avec force politique yi war a bokk yëpp yëpp yëpp bokk et le dernier mot parvenir au peuple au peuple xam nga lu tax foo loolu am solo. tey jii su Ousmane Sonko bokkul Karim wadd bokkul Bougane bokkul Kanin bokkul dans cinq président bi ñëw bu ñëwee première préoccupation mooy lan mooy defaat beneen dialogue parce que tôt ou tard Ousmane Sonko va dans le jeu. tôt ou tard Karim Wade va revenir dans le jeu mais autant les maintenir maintenant dans le jeu et le peuple arbitrer conflit bi fi nekk. Sénégal mais mais le dialogue doit être permanent mais aujourd'hui euh, même kii ñëwaat dafa mën na dialoguer beneen bi mooy euh, lan la ñuy def la date du 2 avril. la légalité et la légitimité du président de la République. foofu quand même dafay poser dafay poser Sall fégal na le 2 mhm. avril. nous sommes gouvernés par une constitution. Le 2 avril, Macky Sall doit démissionner. Le président de l'Assemblée nationale entrer en jeu organiser de nouvelles élections. Consensuelles, ñu dépasser la crise définitivement dugg dans une nouvelle phase politique ku sénégalais yi wóolu. kon jàpp nga ne li ñenn ñi di wax que ne mën nañ def élection présidentielle le 3 ou le 10 mars yow date boobu moom mënuñu ko ci def parce que il faut qu'on dialogue d'abord et puis choisir une autre date donc vous êtes comme le président la Macky Sall bi woon la date du 15 décembre. vous pouvez pas me dire que vous êtes comme le président non ndax da nga am gis-gis je veux dire. non non non non comme Macky Sall bi waxoon président daf ko ne. nañ dem le 15 décembre waxuma loolu de hmm. soxlawuñu dem le 15 décembre. suñu amee un dialogue. vous proposez ban date ngay proposer. non je ne peux pas. du ma technicien ministère de l' parce que li am solo mooy. nañu waxtaan politique ñi ngi wax kenn ku ci ne say date. wa non man man nag amaguma ab date nag <laughs> amoon na fi benn théâtre bu ne bu ay date xaw yaa ngi wax yaa man donc amul solo man li am solo. j'ai su fekkee situation bi nga xam ne kenn xaaru ko woon xam nga c' est une situation inédite. Mhm. kenn xaaru ko woon. situation bi dab nañu. bu fekkee mën na nekk occasion bu mën a jur. Sénégalais yi toog ñu mën a waxtaan ñu mën a d'accord ci loo xamante ni dina mën a indi situation vie politique bu normal foofu on gagne du temps ka nga fal. un président mu ñëwaat wara gàdduwaat dossier yi FC 25 d' accord ñu ci. non nee nañu dañuy maintenir. mais euh, élection yi avant le 2 avril. ñoom ñoom duñu. Euh, ñeneen également di ay waa société civil comme tout à l'heure duñ Sénégal bind nañu benn lettre adressé ko est ce que tey loolu ngeen bëgg yéen mën ngeen mën ngeen ko am aujourd'hui ce large consensus. mën na sut la constitution du Sénégal ba ngeen war a mën a yegg ci jaloge choisir une date bu jéggi. le 2 avril comme ni nga ko waxee tout à l'heure xam nga ji rek lañu wax waxtaan ku nekk rek am na noo gisee mbiri man ce que je dis là c'est la bible mais yaakaar naa ni des gens de bonne volonté ñi nga xam ni Sénégal rek leen ñor muy ñooñu nga wax muy société civile tous je pense que intelligence bi fa nekk ak patriotisme bi fa nekk ak bonne fois bi fa nekk yaakaar naa ne ak lu mu ci mënti doon war nañ mën a boo xamante buñ ci génnee dina gën a dëgëral suñu démocratie ak ñi nga xamante ni dañu leen a xañ seen ak dañ leen a écarté du jeu politique ils sont c'est des victimes dañu waxante dëgg. mais tey conseil constitutionnel génne na liste bu bees ginnaaw bu mu constaté euh, décision bu di Wardini ndax loolu prouvé wul que moom mu ngi ci logique am ni liste boobu ñu jàppoon moom moo war a dem. non y a aucun bu fekkee loolu la ñu war a continuer ñu continuer ci. yéen daal loo leen am jël. doo leen j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça. mais am na loo mën am na loo mënul. ci débat la ñu toll waxtaan lañu wax débat boobu am nañ ci suñu xalaat am nañ ci suñu position ñu wax ci suñu xalaat ñu wax ci suñu position le dernier mot ne nous revient pas mais am nañu droit ñu wax lu ñu xalaat par rapport à ça dañu war a dem élection mais su fekkee processus bi force politique yi war a bokk wala personalité politique yi war a bokk mu permettre au peuple sénégalais mu arbitrer. xam nga conflit bi fi ne Sénégalais yi ñu bëri dee ci ay projet politique daal di ci mbëkkante. ay leader yow waxuloo woon boobu bañ la recalé moom da nga jàppoon sa njàmbur. non eh, peut-être yaa ngi woon ci les euh, euh, recalés mais coow li mais da ngeen a indi bi da ngeen cee bëgg a ma bañ ma man bañ ma éliminer le soir même j'ai j'ai j'ai mais maanaam agitation bi nii mais mais agita il faut être responsable c'est pas parce que éliminer nañ la donc euh, donc yéen da ngeen a profité ci prof ndollu PDS bi yéen également pour bëgg. kan mooy propre pro. mais yow ku ci mel ne yow ku ci mel ne le le collectif. parce que boo nee da ngaa bëgg wax nga li nga wax leer na dégg nañu également ku ci mel ne je pense moom Mamadou Diop Decroix entre autres yu jàpp ne ñu ci bari que dañu war a reprendre le processus vous avez profi vous profitez ci événement kii bi euh, li am ci contexte bi pour que ñu delluwaat ginnaaw sur le processus électoral alors que les décisions du conseil loolu la wax. je pense que kon comprendre <laughs> donc la logique de ma pensée man traité wu ma PDS traité wu ma prox ndoolu PDS traité wu ma waxu kaneen sama wax la traité position FDS les Galawaar ñeme ko assumer par rapport ak position publique j'ai bu fekkee dañ ne dañuy waxtaan laa la wax bu fekkee waxtaan yu mën na gën a xóot suñu démocratie man d'accord nga ni mal mane nañ ko d'accord nga ci ni bari na lu arbitraire. oui y a beaucoup de quoi. y a beaucoup d'injustice. su fekkee waxtaan boobu mën na xóot ba mu inclusif xam nga li ma ci important mooy que le peuple sénégalais puisse arbitrer les différents politiques yi fi nekk yoo xam ni peuple rek moo ko mën a arbitrer loolu suñu xalaat la n'empêche amul problème si on doit y aller sur l'autre logique jusqu'au bout mais ñi dem élection li am solo mooy Macky Sall moom jeexal justement loolu laa bëggoon wax bu fekkee dem nañu élection avant le 2 que dialogue boobu naam ñu ngi koy laam-laamee ba certaines dates sax ñu ngi ko commencé euh, di di ko di ko annoncé peut-être que dinañ ci gën a am lu lu ci gën a leer mais su fekkee ne loolu antuwul ñu dem élection lan mooy nekk sa position euh, euh, sama position mooy les candidats yi yi jàllagul les plus représentatifs ñoo nañ seet si ma à Mm-hmm. muy Khalifa Ababacar Sall di Malick Gakou di président Aliou Mamadou Dia euh, di Thierno Alassane Sall euh, di délégation Bassirou Bassirou Bassirou Diomaye Diomaye fay Faye je yooyu yëpp di président Idriss Seck donc mm-hmm. ñun FDS les Galawaar def nañ conférence nationale sur la question am na liggéey bu ñuy ci santoon ñu jox mandat au parti su mag président Macky Sall arrêté arrêté date bi incha allah FDS lay gëlawaar ñi nga xam ni méngoo nañu ak ñun gis-gis ci ñuy jàpp ni mun nañu liggéey ensemble. Idrissa Seck moo ñëwal boppam Idrissa Seck moom da ngeen a séparé wu mu demee rejoindre Macky Sall donc est-ce que kooku mën nañu xaar Babacar Diop dem dem rejoindre la coalition de Idi. Euh, Idrissa suma Babacar Constance la woote de. Idrissa suma mag la. Hmm. waaw c'est un grand Thiès waa suma mag la mu def lu bëri Thiès euh, parce que je suis maire je suis très bien placé xam lu Idrissa liggéey biir Thiès mais yaakaar naa ni il a fait des erreurs politiques yoo xamante ni choix politique yoo xamante ni jàppoon naa ni du gëm gëmmu woon ni mooy yi gënoon yi mu waroon a def. surtout dem bokk bokkul warta bokk ci say choix alors. waxuma lool de. donc man waxuma lool de donc dama ni